Toujours dans votre journal People à présentation, Seydina Tange Tandian Serigne Saliou sur le canal 33 Leral TV ou le canal 8 ou le canal 28 en Gambie nag muy ay kàddu yoo xamante ni kii di président de la de la République Macky Sall di nga ko doon wax ci papam bi nga xamante ni mooy Ablaye Wade lan la Macky Sall doon wax ci papam bi di Ablaye Wade ce que de son père je ne trahirai Abdoulaye Wade kii di Macky Sall dafa mës a yëkkati ay kàddu xam na ni que moom du mës a trahir kii di Abdoulaye Wade maître Abdoulaye Wade et Macky Sall ont longuement cheminé ensemble dans cette vidéo ils sont ensemble fait la genèse et cette collaboration qui a toujours été sincère si maître Abdoulaye Wade a affirmé que Macky Sall ne lui a jamais rien demandé ce dernier a aussi dit qu'il ne trahirait jamais tu as été jeune tu m'as donné confiance tu n'as jamais avait-il fait savoir c'était à l'occasion du décès familial ku siiw yéen a ku siiwal dëgg la ku yàqu yéen a